dala baxda auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di nuyu mbokk jullit yëpp di jiital si nuyoo bi suñu xalifa alaaji Keeba Siise muy xalifa Cheikh Moussa Siise ñam borom daaru di ci toftal suñu sang suñu bunj ci yàlla muy Cheikh Pape Diong ñu koy ñaanal gudd fan ak wér ci biir ak ci bitti ba li nga xam ne mooy yéenam ci liggéey suñu borom bi te mu jaaree ci waaru Cheikh Moussa suñu boroom defal ko ci lu kawe njort te ñu ànd ceeg moom di ci ndokkeel kullu rijalla yi nga xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi wuyoo baatu ashadu an la ilaha illallah seen ay mbokk taalibe ñoo leen di woo ci bis bi nga xam ne moom la ñu dëgmal muy cant annuel yi nga xam ne moom lañuy faral di amal fële ci Dakar Plateau ci lalu wurus bis bi nag mu ngi amee le 30 novembre ñu si woo mbokk jullit yépp képp kuy wuyoo ashadu an laa ilaha illallah bépp mbindeef ñu ngi lay woo ci bis boobu ngeen ñëw ñu ànd tudd yàlla waaye waxtaanee li nga xamante ne si mooy baatu laa ilaha illallah te nga xam ne moom moo tënk diine kon loolu lañu amoon luñ doon jégle seen ay mbokk taalibe waa Masalikul Jinaan lil aarifiina billaahi ñoom ñoo leen ci woo ci bis boobu bu ko defee dañuy jox Baye Diadji rek moom mu amal li nga xamante ni si mooy programme yi mu wax ni muy tëddee ci bis bi kon Baye Diadji bisimilah. waaw ñu ngi wax euh, alhamdulilahi rabbil alamin euh, di siyaar ñëpp comme ni ko suñu jëwriñ Saliou waxee di jiital ci siyaar bi ki nga xam ne mooy suñu xalifa muy Serigne El Hadj Kéba Cissé di ko ñaanal gudd fan ak wér di siyaar tamit suñu buntu ci waaru Cheikh Moussa muy Cheikh Pape Diongue di njiital eh, daara Masalikul Jinaan laa defina billah comme li ko sama jëriñ waxee bis bi mu ngi am le 30 novembre ci li nga xam ne moom mooy laru urus di Dakar Plateau bis bi nag du fanaan day yendu mu ngi tàmbale 10 heures di war a jeex li nga xam ne moom mooy 23 eh, heures bis bi programme bi ni mu tëddee mooy bu ñu xëyee suba dinañ jàng alxuraanul karim bu ñu paree def kuréelu xasida kuréelu xasida xasida boobu noonu nag bu noppee nañ def xatmu bi waxtaan ci li nga xam ne ni moom mooy njëriñu laa ilaha illallah bu ñu paree dinañ xewlu bu ñu xewuloo ba pare bi nga xam ne nii moom moo ci topp mooy marche bi nga xam ne nii moom la ñuy amal après marché boobu noonu dinañ développé li nga xam ne nii moom mooy ñaari thème thème bu ci njëkk bi mooy l'islam le meilleur modèle de développement personnel et économique maanaam l'islam nan la mën a suqalee li nga xam ne ni moom mooy développement nit ki ak li suqalee li nga xam ne ni moom mooy développement réew boobu mooy thème bu njëkk bi ñaareelu thème bi mooy yàqu-yàqu jamono fi mu toll ak lan moo ko mën a saafara bis bi nag ni muy tëddee mooy dañ ci rendre hommage yi nga xam ne ni mooy ay góor yàlla yi nga xam ne nii daan ñu daan nañ ànd ak ñun ci waar bi ku ci njëkk mooy sëñ Modou Ngom ibnu Cheikh Moussa Cissé kooku kenn la ci ñun kuñ ci rendre hommage keneen muy ki nga xam ne ni moom mooy Cheikh Mame Ngor te képp koo xam ne ni wax na Cheikh Mame Ngor wax zikrullahi te yàgg na teewee cant yi keneen kiñ ci rendre hommage muy sëñ Modou Fana ibnu Cheikh Moussa Cissé keneen kiñ ci rendre hommage mooy koo xam ne ni tamit daan na teewee cant yi ay yoon yoon yoon mooy sëñ biran Mbaye kon ñooñu noonu sa lañ ci rendre hommage gannaaw loolu mooy cantu Dakar yi ki nga xam ni tamit lañ ko parrainé ren muy sëriñ Habib Cissé li waral nag ñu parrainé ko mooy dafa yàgg taxawul daara ji ci bu muy metti moo tax nag comme ni ñu wax ne gannaaw lay fété moo tax du bis bu toll nii ñu dara jàllale ko moom sëriñ Habib Cissé te bis bi tamit ak li nga xam ne ni moom moo ci ëpp solo muy marche bi nga xam ne ni dañ koy amal ci à partir de diggante 16 heures ak 17 heures te marché boobu noonu ñu ngi ciy woo pli rijaalullaahi loolu nag bu noppee dinañ jox sang yi nga xam ne nii ñoom ñoo teew ci bés bi ñu barkeeru ci li nga xam ne ni moom mooy thème bi bu ñu paree sang bi xatmu ñaanal moro bi ñaanal mbooloo mi ñaanal leen ba beneen yoon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax kon ñu ngi wàccee foofu kàddu yi di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.